i passing jovon jangan jërëjëf mbokk yi ñu seetaan ci wasaare làmb ñoo ngi leen di nuyu am kontaante ak mbégte comme ni ñu leen koy defalee saa sune ñu ngi fii ci Thiaroye Azur certifié champion boo xamante ni tey ndaanaan la boo xam ne yàgg nañ koo wër waaye tey yàlla suñu borom dogal na ñu fekk ko ci salle de musculation bu muy entraîné kooku mooy Tanor bu Diourbel Tanor bu Diourbel nag buñ ko waxee ñëpp seen xel dinañ dem ci làmb Diourbel rawatina li nga xamante ne jaloore boo xamante ni def na ko fa waaye dinañ dugg xool Tanor ni muy entraîné lu muy waajal ak fu mu nekk adversaire yiñ koy proposé ñan la ci bëgg a bëreel sëñ Baskaay ayca musique xale waali xale ramdaan di xale règlement yi bees la xanaa kon sama invité mu ngi noonu muy Tanor bu Diourbel Tanor tey ñu seet si la fii ci salle de musculation booy bi ngay entrainé maa ngi lay nuyu. waaw maa lay fay bu baax a baax waaw wasaare maa leen fay bu baax a baax waaw. noo def sant yàlla bu baax a baax a baax. ak activité ñu ngi ci kawam ñu ngi ci waaw ñu sant kawam bu feebar bi ñëw dëkk bi ñëpp mbër ci bari dañuy meññ mais yow daa mel ni forme bi macha allah day gën di yokk. waaw dañuy sand yàlla rek parce que aussi comme euh, daaw bëriwuñu. ren gis nga saison bi ni ko suñu borom dogale dañ koy sant yàlla bu baax a baax ñaan suñu borom def tawféex rek avant tout bala maa wax dara di sant waa Diourbel di sant waa Lamsar di sama sant sama doomu ndey bi ma àndal muy Badou moom sama doomu ndey la di sant sama grand Etienne Ngom ak euh, sama directeur Moustapha Gueye ak Adrien quoi sama grand mooy Zeyzen maa ngi bëggee ñëpp di leen siyaar bu baax a baax waaw. Tanor dama bëgg tey ñu ñu waxtaan ci làmb parce que ñu ci bari ñi nga xamante ne dunduñu làmb te malgré que Diourbel tey ñeme naa wax ni yaay seen roi des arènes loolu yëpp bëgg naa ñu waxtaan ci Tanor lan moo la dugal ci làmb ak lan moo indi turu Tanor. waaw Tanor kooku sama sama sama maam moo ma ko tuddee muy sama turandoo Tanor moom mbër la woon aussi moom wax dëgg yàlla euh, mu nekkoon nit ku ràññeeku sama maam moom turu maam la daal waaw. lan moo dugal ci làmb. làmb amul la rek sama benn grand bi ñuy wax ñaay fay ak ñoom Mambay ci ñoom laa doon seetaan ñuy bëre mbapat foofu la ma amuru làmb duggee daal. waaw. nga dugg si kañ ban année nga dugg si ci làmb. no année ba juste maa dugg jàpp ma année bi juste quoi nag. année bi nag jàpp ma ko waaw. Euh, nga bëre ñaata combat ren. man bëri naa euh, quinze combats treize victoires deux défaites. quinze combats ak juróom. waaw. am treize victoires. waaw deux défaites. waaw seize combats la sax trois défaites euh, trois défaites la treize victoires. waaw. Arnaud tey boo ma doon limal yan mbër nga daan say nataangoo ñan nga daan. waa loolu soo ko waxee dafa may neex parce que man Double Tyson maa ko fekk Kaolack daan ko mu kenn musul daanu. waaw daan Gabar Sine daan Béykay Junior daan Vandam daan Boucan. Vandam bu rock rock énergie. Boucan mel na ba. waaw daan ko waaw ñooñu ñëpp ma daan leen waaw. daan Cheikh Niang. bëri na waaw bëri na mbër yoo xamante ne nii xam nga 13 combats mënoo ñëw ñëw rek kii ko quoi daan El Hadj Diouf bëri na mbër yoo xamante ne nii daan waalo bañ na xam nga ñooñu ñëpp daan naa leen waaw. may seetaan di dund làmb xam na ni ñi nga wax ñëpp ay champion lañ kenn du notable seen champion ci làmb waxuma la ak Cheikh Niang ñooñu noonu koosar gi ay Bouka ay Mbaye Guèye Junior Vandam. Gabar Gabar Sine nga xam ni. <laughs> mais léegi mën nga ma expliquer sa combat yi nga yi nga bëre yëpp ban combat moo la ci gën a neex. waaw wax dëgg yàlla man su ma yewoon ne la sama combat gabaar moo ma ci gën a neex parce que gabaar da di gaynde te boobu maa ngi moom dañoo jiyaat lu neex loolu noonu daf may neex trop. waaw combat sama combat daal bokk na ci lu ma gën neex sama carrière waaw ak sama combat ak Double Tyson parce que wax dëgg yàlla ndaanaan la musul daanu man rek maa ko fekk dëkkam daan ko wax dëgg yàlla combat yooyu bokk na ci combat yu may marqué ndax ñooñu ay ndaanaan lañ bu baax a baax a baax waaw. lan moo tax sa retar ci ci làmb wax wala da nga jël sa sa làmb lépp rek nga nga nga nga féetale ko côté Diourbel parce que dakaar fii gisuñu du nga nga wane li nga war a wane wane ci làmb. mais Dakar fii wane naa fi lu bari parce que fii bëri naa fi ay bis yu rëy wane ci sama bopp parce que fi mu toll nii retard bi fi mu toll nii man sama jëm bopp sax moo ma yem parce que fi mu toll nii samay morom rek ay euh, ne ci làmb ji mais làmb ji fi mu toll nii li ko yàqu mooy moytu wante bi dafa bëri moytu ban soq fii dox nañ sama combat ak moom ak sama combat ak. jat li ñoo ñëpp dañoo ruux damaa bëgg nag ponkal yi ñu ñëw ñu bëre waaw dañoo ruux ay ragal lañ bu ñu weddee li ma la wax nañ jël avance bi samay morom amul ku ci am treize victoire amu ko te ñi ma la wax ñëpp dama leen a daan du ay jël kii de dama leen a daan jël yu rëy waaw dama leen a duma daan leen ñooñu nañ ñëw ñu bëri samay morom. Diourbel moom dégg naa def nga fa euh, lu mucc ayib li xale yi naan fekk si leen dóor leen loolu ñaaw na mais yow kenn fekk si wala Diourbel dóor la mun nga maa wax Diourbel ñaata combat nga fa bëre ak yan nattaang parce que làmb ñi ñu fay coow ci Diourbel yëpp bëre nga ñoom daan leen te Cheikh Niang tamit for naa ci wewu béy ñu ne du benn combat ngeen bëre bëgg naa nga gën ma leeral sa combat yeeg Diourbel. waaw Cheikh Niang xam nga ne bëri na ñaari yoon moo Cheikh Niang moom mu njëkk a daan ci mbër yëpp parce que boobu dama nekkoon xale xëy na xelu xale jàpp ma rek mais biñ defaatee revanche ma won ko ne ëllëg dama juumoon rek ñëw def la maximum dem sama yoon. parce que ngeen njëkk a bëre mu daan la. fan ngeen bëree woon mu daan. Jurbel lañ bëree woon mu daan ma ñu waat ma daan ko. revanche bi fan la woon. revanche bi Jurbel la stade Ely Manel Fall la image yi mu ngi fi sax waaw. sa diggante ak lan la. ku leen boole ci làmb di ko jël. non sama moment wax dëgg yàlla sama dama bëgg samay moroom jël ma ku ci mel ni Moussa na ñëw ñu bëre Sokocine na ñëw ñu bëre Giri 2 na ñëw ñu bëre. ko ci moom génnee ko ci moom euh, Serigne Ndiaye 2 la moom moom këccët ko ci giri 2 nga xamante ni gaynde mer la fanaanoo Moussa Ndoye ger gaynde mer la fanaanoo Moussa Ndoye ci Garga Mbossé la jógee Garga Mbossé daan ko mu am lu ko metti loolu bëgg a rectifier erreur am giri 2 rëg-rëg moo ko daan nga bëgg a duggaat ci ñooñu Tanor xoolal li ngay def déggoo li ma la wax de ñi may seetaan xam nañ bu baax li may wax dama leen ne giri 2 laa la wax ak Moussa Ndoye yaa ngi dégg bu baax li ma ñëw ñooñu ku ci ñëwal ci kàttanu yàlla dama lay duma la may daan maa la wax loolu ku ci weddi loolu jël ko samay morom amul kenn ku ma ci ëpp victoire jatli ak soq nag ñoom ay ragal lañ ñoom ku ci weddi li ma la wax na jël avance bi ma def moom soq moom mu ngi ci guddi gu bët setagul moom it ndax moom am na combat jatli moom bërki démb gis ngeen li nga xamante ne moom la ñàkkee arène nationale jatli Assane bëggoon na sama combat ak moom Diourbel mu ruux bu ko neexee nag ñu def ko Dakar des na ci moom na ñëw ñu bëree Diourbel lan moo tax ñu gëm Tanor loo wax rek ñu ne Tanor tanoor tanoor Tanor lan la lan moo sa secret biir Diourbel. mais man Diourbel bu ñu ma gëmee dañ maa war a gëm parce que man aw ma lenn lu dul Diourbel man booñ nañ ko ba ne Tanor Diourbel man sama lépp Diourbel la kon donc man Diourbel maanaam seen produit la man dañ maa war a tiitaroo man aw ma lenn aussi lu dul ñoom waaw Diourbel wax dëgg yàlla aw ma seen pay daal parce que man seen doom laa waaw. lamb ñu toll am na yeneen sculpture yi ñu gis yu dugg ci làmb yoo xamante ne ñu ngi ñëwaat pare pour jàppale làmb. am ah, jam céeri bu ñëwee ma may ko sens. gabaar da ko daan ma daan gabaar bu ñëwee ma may ko sens moom jam céeri jam céeri yaa ngi dégg baax li ma lay wax da ko daan man mu duma gabaar daan ko bu ñëwee ma may ko sens. waaw waaw. gabaar da ko daan ma daan gabaar. te déggoo li ma la wax treize victoire la am samay morom kenn amu ko ci ku ko ci ëppale nag mooy loolu noonu. li ma jaaxal mooy ku la gis ngay dox du laajte ana mbër mi macha allah ci dayo ga ci taay bi ci forme bi mais li ma jaaxal mooy mbër yi dañ lay teggi wala dañ lay daw wala yaay toog fii caméra yi tiim la tanoor di wax lu ko neex te bu ko promoteur yi seet see mu daw dës. man Diourbel laa dëkk Super Étoile mooy sama mag man duma ragal man damaa def li ma war a def ci àll bi ba pare soog a ñëw fii Ndakaaru yaa ngi dégg bu baax li ma lay wax nii man li may wax nii dama ko xam bu wër te sama morom bu ko weddi jël ko xama lamb ji léegi soo gisee mu demee nii yoon wi yeex mbër yi ñooy moytuwante rek gars yi ñoo bëgg lu nooy rek parce que xam nañ ne fii li fi nekk dafa dëgër këj fii lu nooy amu fi waaw. promoteurs yi ñu ngi lay contacter. waaw Assane Ndiaye amoon nañ ci moom yaakaar Gaston aussi ñëw na ren maa ngi ñaan suñu borom di wax Père Max aussi fi mu toll nii xaar bi dafa yàgg parce que temps bi maa ngi bëgg a yàgg Lamsaar fi toll nii ren saison bi di ñëw lépp dafa war a leer saison bi nii di ñëw lépp dafa war a leer parce que taxawaay bi dafa yàgg yoon bi dafa yéex te dafa jot nag heure bi jot na nag ñu wane suñu bopp dem suñu yoon li suñu morom yi am yëpp ñu am ko waaw. seen max ma koy nuyu de passage waxoon na fi ne Tanor bu Diourbel ku ñu yóbbu avance am mu delloo ko Tanor xanaa da mën a xeex. non mais déggoo li ma la xëy na du xeex bi sax mais du cadre ñu dañoo mën a xeex mais ragaluñu xeex parce que làmb kenn ku ne xam na ne poom góor la mënut a yomb sa combat yaak Bouka seetaan naa ko xeex boobu nga ko indil jiita ngaat te Bouka moo la ëpp maas mais keroog da nga ko indil alxatir boo xamante ni kenn xamul fu mu ko doon waxi waaw sama combat ak yàlla dafa def combat bi mu ko jëlee motul 120 jours may gërëm ma wax rek di gërëm aussi gendarmerie maa ngi leen waa gendarmerie Colobane maa ngi leen di gërëm parce que ñoom aussi combat boobu ñoo ma préparé préparé naa fa quatre combats yëpp suñu borom ñoo may ndam di ma sant sama benn grand bu ñuy wax Adrien élément Zeyzen la maa ngi koy di ko siyaar bu baax a baax ndax moom fa yóbbu wax dëgg yàlla su ma amee combat ñu ci jàpp baax a baax a baax a baax waaw. nga préparé ko préparation bu jaar yoon nga ñëw sa combat yak bu ko am mën nga ma expliquer nan nga ko bëree déroulé combat bi ba daan ko. waaw làmb ji boo gisee sama combat ak bu ko jolof keroog dañu xeex avant làmb ji làmb moom boo gisee ñu xeex avant làmb ji war na la leer ne làmb ji moom du ñàkk xeex moo tax bu làmb arbitre soufflé mu mel ni ku may yàkkamti fekk na man maa ko gën a yàkkamti looloo tax foog mu am kaani ak soble tuuti ñu soog a kii faaw ñu nuyante ba mu saf ñu soog a bëre maa ngi moom loolu la demee lamb ji. lan moo la jëlee Diourbel indi la Langsar. waaw Super Étoile rek parce que Super Étoile sama mag la te yaakaar naa ne fépp fu mu nekk su fa nekkee man dama fa war a ñëw parce que ñun ñoo bokk Diourbel bokk lépp muy sama mag maa ngi koy nuyu à passage maa ngi koy nuy bu baax a baax a baax. Super Étoile ana mu moom fu ne. non Super dafa génn rek dafa am lu muy lijjanti mais mu ngi ñëwaat. dégg naa bàyyi na de. non bàyyiwul sax parce que ñun ay xale lañ faa mu ëmmuñu ba ci kanam tuuti ba teg ñu ci yoon bu baax mu soog a bàyyi waaw looloo la indi euh, fi nga xamante ne mooy Langsar Langsar bi nga fi ñëwee ba léegi mos nga fee bëre ci turu Langsar. ci. turu Langsar mos nga cee bëre. waaw waaw parce que bis yi ma lay wax yenn bis yi bis yi ma la limal yëpp sama combat Mbaye Guèye Junior ak sama combat ak Vandam sama combat ak Boucan ak sama combat ak Double Tyson ak sama combat ak waalu bañ na yooyu yëpp Max Mergan moo ko dox mais nag dañuy ñaan suñu sañoon saison bi ñu ciy bëri ñaari combat wala trois combat moo ciy génn parce que benn combat bi dafa dafa ndaw suñu sañoon saison bi ñu bëri ci trois combat parce que mu yoon wi gën a gaaw parce que yoon wi dafa yéex waaw. troisième trois combats ci benn saison dina yomb ci yéen parce que li ngeen di laaj seen gafaga day xaw a bari quoi ci wàllu koom-koom. ay mbëri ndaw lañ làmb amul sponsor yéen mbëri war ngeen ci dugal seen loxo jàpp ci ba làmb mën a yéegaat li di laaj dafa bari. non ñun moom lu ñuy laaj bëriwul moom mais na mbëri ñëw rek ñu bëre. mbër mbëri nañ ñëw ñu bëre. bëri bi waaw parce que bëri bi mooy tax ma yegg fa ma jëm moo amal solo waaw. su ma la doon proposé ay ñetti mbër ne la ne la mbër yi tànnal ma ci koo ciy jël di ma ci mën a tànnal ku la neex. ñetti mbër yi di kan kan maanaam man maay choisir ñetti mbër même euh, Franc ak Double Tyson même combat yooyu Franc ak Tyson 2 ñoom ñaar ñëpp ku ci daan sax bëgg naa la. ci daan ak ku ci daan déggoo li ma la wax waaw parce li ma la wax ni soo gisee ma wax la ñoom ñaar ñëpp kenn defu ci arène man lu ma deful amul comme li sama père Birahim Ndiaye doon wax ma koy nuyu au passage nee na bis bu njool yi wexee ndaama yi génn làmba ji te njool mi ma gis macha allah kenn na taabalewu ko ndax ku nekk ci wetu père Max Mbargane nga xamante ni moom làmbaloog la ku mu indi rek mën naa wax ci combat nu mu koy bëree ba daan ko war ngaa mën a bëre trois combats ci saison bi làmb nag moom boo wexee ñu teggi la fi wutal la benn gafaga boo amee benn defet comme Malick ñaar ñu dugal la ci kàmb suul la waaye am na ñoo xamante ne ci làmb dañoo war a bokkaat war a wanewaat seen bopp tanoor pour nga dugg ci làmb ba ku la gis xam ni kii tanoor bu Jurbel la lan moo koy may waa liggéey rek parce que su fi ma fekk nii may liggéey saison bi xëy na tëj na na nañoo tëdd mais comme daaw euh, presque année daaw bëreewuñu année bi gis nga ni mu demee saison bi di ñëwaat muy deux ans yoo xamante ne bëri saison bi di ñëw dafa dañoo war a liggéey doole ju bëri bu làmb ñëwee bu arbitre soufflé ñu def li ñu war a def dem suñu yoon parce que ñun waruñoo tardel amateur yi dañoo war a ñëw def fulla ak fayda dem suñu yoon waaw. soo amee combat ñaata kaar mooy jóge Diourbel. waaw parce que sama combat bi pare waa Diourbel wax dëgg yàlla dañuy mobiliser bu baax a baax a baax lu mu gàtt gàtt cinq moom ñoom maa ngi ñaan suñu borom mu yokk ndax incha allah xam naa bu ma amaatee combat moom DG Moustapha Gueye ak waa maire beeg ñëpp dina ci jàpp mu gën a yaatu di siyaar sama kees fi may liggéeyee maa ngi leen siyaar baax a baax di nuyu sama gayen Issa ak waa direction course yëpp université bu kees. ñu lay jaajëfal bu baax a baax a baax di kontaan ci invitation bi ak dalal bi ñu nangoo dalal noo gisee wasaare làmb. waaw wasaare wax dëgg yàlla euh, ñu ngi ñu ngi doxal bu baax a baax a baax ñu ngi leen di suivre bu baax a baax ñu ngi wasaare làmb ni mu yaatoo bu baax ñu ngi leen di sant di leen gërëm di rafetlu émission bu baax a di bëggee sama doomu ndey Badu di siyaar ñëpp di bëggee ñëpp di nuyu sama grand Etienne Ngom aw ma lu dul moom ak waa Diourbel ak sama fans club bi ne foofu maa ngi leen di siyaar waa Diourbel ak ñoom Papis Ndiaye sama fans club bi nekk foofu ak waa Caaroy Géej waa Lamsaar fi ma nekk maa ngi ñoom ñëpp waaw kontaan naa trop di siyaar sama gars yi bu laal parce que ñu ngi liggéey fi mu toll lu neex fii ñu ngi liggéey lu neex daal waaw maa ngi leen di bëggee ñoom ñëpp waaw ñu lay jaajëfal bu baax a baax a baax. jërëjëf jërëjëf. ñoom day Bas moom it ñoo bokk dëkk sama waay la maa ngi koy siyaar bu baax a baax a baax di ko ñaanal suñu borom defal ko tawfeex rek ca kaw ca kanam ci kàttanu yàlla. daa mel ni seen diggante yéen ñaar nanguwul bu leer de. non du tey loolu démb la. waaw loolu démb la maa ngi koy ñaanal suñu borom defal tawfeex rek jërëjëf. jërëjëf mbokk yi seetaan wasaare làmb tanoor bu Jurbel laa dalaloon ngir ñu waxtaan ci làmb gis ngeen ko wax na lépp loo xamante ni day yokk làmb champion la parce que champion bu nee bëri na am na treize victoires deux défaites war ngeen ko sóoraale ci làmb war nañ ko bàyyiwaat xel ci làmb te bu jugee mbooloom Jurbel gépp dañuy jug ànd ak moom mën naa ni daanaka comme ci sama biir wax la ma ko waxoon mooy roi des arènes bu jurubeel ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a baax képp kuy seetaan wasaare làmb gis nañ yéene yi gis nañ safoo bi ngeen safoo wasaare làmb la ma leen doon wax rek doo lay jën ndox doo lay waykat waaye doolay wasaare làmb yéen la suñu mbokk internet yi ñu leen di jaajëfal ba ëllëg incha allah ak beneen champion. rak muy gaaw.